Euh, xew-xewu diine bi nga xam ni moom la ñuy waajal ajjuma ak euh, samedi euh, le 11 et 12 janvier 2019 réunion bi nag mu ngi am ginnaaw réunion bu jiitu bu am fële si Bambilor te sous-préfet présidé présidé woon que ngir ñu waxtaan lu aju si wàccaayu bis boobu réunion tey si ngoon nag li ko waraloon mooy ñu xool engagement yi nga xam ni service yi jëloon nañ ko foofu si Bambilor fan lan si tollu si doxal bi nga xam ni service yaa ngi koy doxal euh, waxtaane nañ fi nag poñ yu bëri euh, yu mel ni sécurité euh, santé hygiène wàllu eaux forêt wàllu cet gi wàllu jënd ak jaay wàllu courant bi wàllu ndox mi wàllu aussi euh, euh, logistique maanaam euh, oto yi nga xam ni ñoom ñooy transporter bagages yi ak sièges yeeg barrières yi si wàllu sécurité ki nga xam ni moom moo fi toogal commandant bu brigade bu Sangalkam dalal na xelu organisateur yi si disposition yi nga xam ni jël nañ ko ngir euh, euh, euh, fexe ba képp ku fa ñëw en tout cas ñu aar sa jëmm aar sa alal ba nga mën a gàmmu ci jàmm delluwaat ci ci ci jàmm lanu soxla en terme d'effectif organisateurs yi am na lu nu lu nu nombre bu nu wax mais damay wax toujours ni sécurité dafa am ñoo xam ñoo ko yor yow da nga leen wax li nga bëgg rek mais ñoom nan koy doxale ñoom xam nan nu koy doxale mën nga demander cinquante fekk ñoom cent moom la ñu gis ni moo baax ci ñoom ensuite toujours sécurité aussi du ñi ngay gis ñu sol tenue rek ñoom ñoo fay nekk ci sécurité parce que am na ñuy bokk ci ñoom ñoo xam ni euh, duñu sol tenue mais euh, li am solo rek mooy euh, dinañ jël matuwaay yépp ba aar ña nga xam ni donc ñoo fay ñëw doon ay ay taalibe toujours ci wàllu sécurité aussi sapeur pompier aussi Euh, ñoom it euh, jël nañ kàddu wax ni comme nañ ko daan defee dinañ ko defewaat noonu ren si euh, taxaw ak gunge ña nga xam ni ñoo fay ñëw si sapeur pompier rek organisateurs yi dañoo ñaanoon ñu jox leen camion boo xam daf leen di may ndox mais ma fàttali ni sapeur pompier ñoom mënuñu am camion boo xam dañ ko fay gaare pour joxe ndox mais mën nanu boo leen amee foo leen def ndox ñoom ñu ñëw indil leen seen camion suttal leen si ndox ndax loolu aussi Euh, si seen euh, si seen liggéey aussi même bu si bokkul sax euh, boole nan ko si boole nañ ko si léegi te comme foofa robinet yi egguñu fa te mbooloo ma day bari donc lépp lu nu man si donc fexe ba ndox bañ a manqué dinañ si taxaw bokk na aussi si luñ fi waxtaanee muy wàllu sécurité wàllu santé bi si santé bi aussi médecin chef bu district ki ko fi teewal wax na ni ni dinañ fexe ba def fa lu ñuy tuddee poste médical avancé ba pare def fa ay fajkat mais garab yi nag mooy manqué si garab yu manqué yooyu nag euh, ñaan nañu mairie bu Bambilor mu jàppale ñu donc euh, débit bi nga xam si laajoon nañ ko ba nu jox ko donc si garab mu jëndal leen euh, débit boobu pour su ko defee ñi nga xam si ñooy faj mën a am garab yu ni yu ni fajee def seen liggéey si anam bu bu mucc ayib. bokk na si wàllu santé toujours aussi waa Croix-Rouge aussi nga xam ne ñoom it yàgg na noo gunge donc euh, kër gi si xew-xew bi ñoom it wax nañ ni dinañ fa ñëw aussi euh, ñëw ban fa daan ñëw euh, donc si anam bu gën a rafet wax nañ aussi ni dinañ jàppale ñi nga xam ñoo nekk si waañ bi si waañ yi di togg si donc sensibilisation ak encadrement ba la nga xam ni aussi ñoo ko fay togg ña koy jëfandikoo aussi euh, duñu si am benn benn benn benn gàllankoor euh, dem nañ sax ba wax ni su suñu mënee am ay euh, ay extincteurs yoo xam ni dañ koy prépositionné donc si waañ yooyu nga xam ni bu jëyee amee rek donc fekk déjà ñun préparé woon woon nañu même bu ko kenn ñaanu mais fagaru moo gën faju donc service d'hygiène aussi ñoom it wax nañ ni ñetti fan avant bis bi dinañ fa dem donc euh, pomper euh, kër gi pompe daluwaay yi ba nga xam ni ku fa ñëw aussi doo fa fekk loo xam ni mën na laa indil euh, loraange ñoom heureusement aussi ma waxaat que chef service bi nee na ñoom produit waajal nañ ko bu yàgg ba denc ko donc ñu problème mu produit. lu jëm si eaux et aussi ñoom it nee nañu amul benn problème li aju si ñoom na waa kër gi rek def demande. donc jox ko ka nga xam ni moo leen toogal foofu sa sa su ko defee dinañ toppatoo lépp loo xam ni aju na si kaw loolu si wàllu euh, set gi aussi waa UCG euh, aussi ñoom it euh, jëlaat nañu engagement ni lanu defoon daaw dinañ def ren lu ko lu toll noonu wala lu ko sut si gunge kër gi si bale ak dindi fépp foo xam ni bërëbu mbalit la woon ñu tondi ko tuuri ko ensuite si jour bi dinañ wut ay camions yoo xam ne dañuy wër donc di nettoyer donc si wàllu woowu aussi euh, amuñu si benn xel ñaar commerce aussi jël nañu kàddu pour wax ni euh, lu aju si dund gi aussi euh, amul dara lu manque si si marché bi ceeb parfumé bi nga xam ni amoon na fan yi ñu génn xawoon na manque tuuti nee na fi mu nii marché bi donc amaat na ko ba mu ba mu ba mu doy donc amuñu en tout cas Euh, benn euh, inquiétude ci marché bi euh, donc approvisionnement boo xam ni approvisionné nañ ko en denrée alimentaire leneen li nga xam ni aussi toppaat na ci muy wàllu courant bi aussi ci courant bi Senelec donc wax na ni courant bi dinañ leen ko yóbbul ci anam bu bu doy ah, ñetti fan lu jiitu bis bi donc defaraat làmp yi defaraat euh, réseau bi ba nga xam ni ña fay ñëw dinañ fa fekk en tout cas courant ak euh, euh, leeraay boo xam ne si bu doy la mais kër gi danoo ñaan rek Senelec mu def liggéey boobu juróomi fan avant muy altine bii di ñëw si loolu aussi ñun dinañ si waxtaan ak ñun si war a waxtaanal su ko defee ñu defe ko ni nga xam ni noonu la ko kër gi bëggee si wàllu ndox mi aussi waa SDE ñoom it wax nañ ni dinañ euh, yóbbu ndox ci kër ga euh, ñetti fan avant ak ñaari fan après euh, dinañ fexe aussi ba seen camion citerne yooyu bu fa eggee aussi ak waa filfil yi nga xam ni daan na leen jàppale si ndox mi aussi ñu fexe xool nan nañuy fexe ba aussi camion yi mën a dem di wut ndox di indi ndax comme foofu amul amul robine te mbooloo mi day bari te fu mbooloo di nekk aussi mënul ñàkk ndox donc dinañ jël suñu matuwaay ba nga xam ni ndox mën fay yóbbu aussi ndox moomu du du manqué lu aju si donc euh, euh, saise yi aussi euh, dinañ xool ak DMTA DMTA aussi nu ñuy fexe ba nu mën a en tout cas joxe ay saisi balaa àllarba ñu ñu ñu yóbbu ko dinañ si waxtaan ak ak sëriñ bi yeneen yi ci des aussi muy véhicule de liaison ak appui bi nga xam ni mairie bu Bambilor donc dina ko appuyer donc famille bi donc jox nañu ndigal Euh, sous préfet mu xool ak mairie bi euh, ndimbal loolu nan la ñuy fexe euh, ñoŋal ko balaa donc àllarba am na loo xam ne aussi wax nan ko muy appui en vivre bi aussi donc loolu aussi dinañ ko dinañ ko suivre comme ni ñu waxee ak ñu nu ko war a suivral ba lu si mën di amit incha allah dinañ ko dinañ leen ko jottali donc en résumé hmm, en résumé donc loolu mooy li nga xam ni moom lañ fi waxtaanee donc euh, tey si ngoon euh, di am yaakaar bu baax ni incha allah bu nu eggee si bis ba bépp taxawaay boo xam ni administration waroon na ko taxaw si bis bi incha allah taxawaay boobu dina mat dinañ fexe ba édition 2019 bi donc euh, romb si qualité organisation li nga xam ni moo fi amoon si 2018 bi donc ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm donc di jox kàddu gi.